asiya ñu daa aju ci xalaat ci lu yàlla sàkk te muy lu màgg màgg lu rëy rëy ni ki asamaan ak suuf ak yeneen ak di xalaat ci àdduna ni muy jeexe ak mbiri alaaxira na mu doy waar ak bakkan ci boppam ni mën a gàttañ loo ak bakkan ni ko war a yare teg ko ci yoon wa fexe ba mu bañ a wàcc yoon wa loolu wax ci bunt bi bunt bi nag dafa gàtt loolu ndax li ngay séen rek jotu ci indi sax benn addis bu dog tàmbalee ci mujj ga dafa woon boo xoolee ci mujj ga dana rek addis bu mu junj rek mu waxan ko ci gannaaw qaala allahu taala innama a'izukum naka dinaa leen waar bi waaxidatin ci lenn rek te an taqoomoo moo di ngeen jóg lillaahi ngir yàlla wala jëm ci yàlla mat naa mbir ay ñaar ñaar wa furaada ak di ay kenn kenn tumma te tafakkaru topp da ngeen xalaat saraa bi nag gannaaw bu ñu saraayoo furaada ne ay isnayni isnayni wa waaxidan waaxidan summa te ay fi samaawaati wal fa taalamu anna xaaliqahuma waaxid loolu ma nga ca saaru soba aay ba tolloog ñeent fukk ak juróom benneel suñu borom dana yonante bi nee leen tey da leen a waar rek ci lenn loolu mooy mbooloo mu baree bari bu mbokkee di gëstu mbir ku nekk di ko lawti lawtee day jaxasoo mën nañoo bañ a àgg ci dëgg-dëgg mbir mi waaye nag su ngeen delloo ci xalaat ci asamaan ak suuf ak lum sàkk moom yàlla ci kaw ngeen def nag ay ñaar ñaar ak ay benn benn te bañ def mbooloo mu jaxasoo muy werantee ko xuloo kon da ngeen daal di wóolu ne maa bi saaxibikum min jinna in huwa illa nadirun lakum bayna yaday xadaabin shadid da ngeen daal di ne seen waa ji maa ko yebal ci yéen muy ndaw muy waaraate di bégal képp ku gëm yàlla ci ngërëmul yàlla ak àjjana bu ëllëgee di xupp képp ku weddi ci mbugalum sawaraak merum yàlla mu tiis ma wa qaala taala inna fi xalqi samawaati naka nekk na ci bind asamaan ya wal ardi ak suuf waxtilaafi layli ak wuuteeg guddi ga wan naxaari ak bëccëg la aayaatin ay taktal ay kiimtaan li ulil albaabi ñeel waroom xel ya alladina ñooy ña nga xam ne yadkuruuna danañu tudd allah yàlla qiyaaman mbir mi mooy taxaw wa qu'udan ak mbir mi mooy toog wa ala junuubihim ak buñ tëddee ci seeni wet wa yatafakkaruuna te ñuy xalaat fi xalqi samaawaati ci bind asamaan yi wal ardi ak suuf te it wax rek mooy su boobaa rabbana yow sunu boroom maa xalaqta sàkkoo haazaa lii ak neen wala ngir ak neen subhanaka sorolal nga ci al himran ba tombeek téeméer mu ne booy jàng surut al himran laaya ba tolloog téeméer ak juróom ñeen fukk su borom a nga naa ni yàlla sàkkee asamaan ak suuf si ak ni mu defee guddeeg bëccëg ñu wute bu kee dikkee ba dem kee door a dikk léeg-léeg ñu tolloo léeg ñu ëppante bu ëppante ga sore lool lool boroom xel yi buñ ko xalaatee daal cay xame seen boroom xam nañ ko wara a gëme ak nañ ko war a wóotalee boroom xel yi nag mooy ña nga xam ne fu mu tollu ña ngay tudd yàlla di ko fàttaliku bu ñu toogee ak bu ñu taxawee ak bu ñu tëddee dañuy xalaat it ci asamaan ak suuf ni mu doy waar ñu xalaate itam ñoom xalaat bay jox rek mooy daanu ji ci rabbana maa xalaqta haza batilan subhanak su borom yi doy sokkoo ngir fa mbaa ngir caaxaan da nga koo sàkk mu yéeme yéeme nga bëgg mbindeef yi xalaat ci ba gëm la wéetal la waaye sàkkoo ko rek ngir fo wala ngir caaxaan walla ngir neen buñ xalaatee ci ni yàlla bindi asamaan suuf ñoom ñoo ñu amee xel foofu rek la ñuy daanu ji mooy wax loolu rek te la ñuy mujje wa qaala taala afala ndax duñu xool ilal ibili jëm ci gëléem ya kay fa xuliqat naka la bindeef leen wa ila samaa ak jëm ci asamaan si kay fa rufixat naka la yëkkateef ko wa ilal jibaali ak jëm ca doj ya kay fa nusibat naka la leen sampe wa ilal ardi ak jëm ci suuf si kay fa sotixat naka lañ ko defi am téeg naka lañ ko tàllale mel ne terrasse fa zakir waareel fàttaleel yàlla innama anta naka yow kat muzakkirun aji fàttalee dong nga loolu ma nga ca suratul Gaashiya fukk ak juróom-ñaareel ñëw nag ci ñaar fukk ak benneel xanaa ñoom dañoo xoolut gëléem yi nga xam ne yàlla leen ko sàkkal xanaa xooluñu gëléem yi ñu leen yàlla bindee ak asamaan si leen tiim xanaa gisuñ ni ko yàlla yëkkatee ak doj mi nga xam ne moo nekk foofu ñu dëkkee ak ni yàlla sampe doj yi ak sax jëmm suuf ci boppam rek ni ko yàlla defee ab terrasse loolu taal li nga xam ne danga nga mën a samp say néeg boo bëggee bay mën a bay ndaxam sax jëmm suuf si ci boppam lépp lépp soo ko boolee xaw nañoo marché ci ne bal la daa xaw a mel ne ab bal waaye nag ci boo àttee ci fa nga taxaw rekk moom foo taxaw rek day nekk fu tàllee tàlli mel ne terrasse mel ne du bal boo bëggee bay mën a bay boo bëggee dëkk mën a dëkk mu ne yonente bi nag ñoom day buñ xalaati yii war maa gëm te wéetal waaye nag yow lay sag wàll mooy nga waaru leen te fàttali leen rek boo ko defee wàcc nga wa qaala taxaala afalam yasiru ndax doxuñu fil ardi ci suuf fa yanturu te ñuy seet al aayata mott lin laaya ja fa laaya ba ca sootu xitaal te doon fukkeelu laaya ba wal aayaatu laaya ya fil baabi ci bunt bi kasiiratul aji la day junju laay may wax ne afalam yasiru fil ardi fa yanzuru kayfa kaana aqibatu alladina min qablihim dammara allahu alayhim wa lil kaafirina dane ñoom ñu weddi muhammad di weddi alquran xanaa dañoo doxut ci suuf si ba gis jeex yi te yeneen jiitu woon te yàlla bu leen yàlla alage nañ xam ne ñoom ñëkkat bu ñu gëmut yàlla te wéetal ko ci topp yonent bi it nam alage woon ñooñee rek la leen di alage ñoom itam mu ne nag bunt bii laay wu mel nii bari na ci alquran yu ci ajo mooy boo doon xool alquran laay wu mel nii dana ci bari lool kon mu doy loo yooyu rek wa minal ahadis bokk na ci hadis yi alxadiisu addis ba assaabiqu bay aji jiitu ca bam ne alkayisu aji yeewu ja aji ñaw ja man mooy ka nga xam ne daana toroxal na nafsaxoo boppam mu ne bu dee ci wàllu addis moom man ngaa dellu ci addis ba metti woon ci gannaaw yonente bi ne woon kay yeewu dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne dafa awale boppam ci dëgg not ko ci ba mu nooy teel fàggul lu nekk ci gannaaw dee baabu li ab bunt la fil mubaadarati ci jëkkante ga ilal xayraati jëm ci yiw ya waxaat timan ak ñaax ka nga xamee ne tawajjaha jublu na li xayrin jëm ci aw yiw xalal iqbaali ci dëgmal ga xale ci moom bil jiddi ci ak farlu min xayri taraddud njul ak déng-déngi tey wax ci bunt bi niñ war a njëkkante lu baax te ci yéene ëpple ni mu ware ak di soññee ka ñaaxe ci ku xës ba dëgmal lu baax mu ànd caaku farlu ak yitte te bañ a déng-déngi deltu gannaaw qaala allahu taala fastabiqoo njëkkante leen alxayraat yiw ya wala ma nga ca saaru albaqara laay ba tolloog téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett wa qaala taala wa saarioo na njëkkante mbaa na ngeen gaawantu bu dee ci riwaayatu warsh nag moom saarixoo rek la waaw du fa nekk ilaa maxfiratin jëm ci njëggal mbir rabbikum gu tukkee ci seen boroom wa jannatin ak àjjana xarduha gog ab yaatuwaayam assamaawaatu mooy asamaan yi wal ardu ak suuf oo iddat xaroof na ko waaja lef na ko lil muttaqiina ñeel way ragal ñu yàlla mu nekk ci alu Imran laay ba tolloog téeméer ak fanweer ak ñett jëkkante lu baax ne alxuraan wax na ca ca saaru baqara ne jëkkante leen yiw yi mooy jëkkante leen yu baax yi waxaat ca suuratu al Imran ne njëkkante leen gaawantu leen jëm ci luy maye njëgalu seen boroom ak àjjanay seen boroom àjjana jooje nga xam ne yaatuwaay ba rekk dafa toll ne asamaan ak suuf si buñ leen xëttale woon ñuy benn nañu toll ci yaatuwaay day misaale yaatuwaayu àjjana bu yaatuwaay ba tolloo noonu nag kon guddaay ba moom dana war a yéeme lool wa amal ahadiisu ndaal addis fal awalu aji jëkk ja abi hurayrata mi ngi bàyyi ko ci abi hurayra wa radiallahu anhu anna rasulallahi wa alihi wa qaala baatiroo na ngeen jëkkante bil amali ak jëf fitanan ay fitna ka xitaail layli yu mel ne dogi guddi ga al muzlimi kay aji lëndëm yusbihu dana xëy arrajulu waaja muminan di aji gëm wa yumsi te mi gont kaafiran di aji weddi aw yumsi wala mu gont muminan di aji gëm wa yusbihu te muy xëy kaafiran di aji weddi ndax yabiixu day jaay diinahu diineem bi aradin ci marchandise maanaam ci luy gaaw a dañ di gaaw jeex mu ne duniyaa ci àdduna rawaahu muslim xadis bi njëkk andi ci bunt bii ne ñu ngi ko jëlee ci abu hurayra mu ne yonent bi dane yàlla day andi ay fitna yoo xam ne dee la du neexa xuus jàll te loolu du weesu rek xew-xewi àdduna yi nga xamee ne bu ca nit ki dee jaar mën naa xëy ànd ak gëm yàllaam gont rek soppi ko yéefar mel ne mësta gëm mbaa mu gont ànd ak gëm xëy rek soppi ko yéefar la koy waral nag nee mooy day jaay diineem jënde ko lu ñàkk ñàkk solo ci àdduna mooy lu maanaam lu ñàkk ñàkk solo ci àdduna te gaaw a dañ gaaw a jeex da koy jaral ñàkk diineem mu ne fitna yu mel nii mu ci seen kanam kon nag dangeen ngeen gaawantu jéem a def lu baax bala ngeen a àgg ca fitna yooyee nee nañu addis boobu day junj xeeti fitna yi nga xamee ne day feeñ ci mujjub jamono tey tegaloo nga xam ne fitna bu ñëw rek ba jàll beneen topp ja mu ne nag koo xam ne xamoo na ko fekkeem déet danga nga gaawantu def lu baax bala nga caa àgg mu lay gàllankoor ak taañi aji ñaareel ji xan abi sirwaata bi kasari siini ci kasara siin sa al muhmalati bari bu ñu neenal maanaam ba tombut wa fatiha akook fataam xuqbata bnil xaaris radiallahu anhu qaala sallaytu julli woon naa wara annabi ci gannaaw yonante bi sallallahu alayhi bil madinati ci madina alxasra takkusaan fa sallamate musalmal tuma qaama topp mu jóg musri an mbir muy aji gaaw fa taxattaate mu jéggi riqaaban naasi baati nit ña ilaa baadi xujari nisaa'ihi jëm ci lenn ci néegi ay soxnaam fa fasixate tiit annaasu nit ña min surxatihi ngir ak gaawam fa xarajate mu génn alihim ci ñoom faraate mu gis ne annahum naka ñoom xadd xajibo yéemu nañu min surxatihi ci gaawam gi xaala mu ne leen dakartu fàttaliku woon naa chey an dara tibrin ci wurus xintanaaw nekk na fi noonu fa karixtu ma siboon ay yax bisani mu téema fa amartu ma digle bi xismati yi ci séddaleem rawaahul buxaari yu wa fi riwaayatin la kuntu nekkoon naa xalaftu di bàyyi gannaaw fil baytu ci néeba di baran wurus mina sadaqati lu bokk ci asaka fa karixtu ma siboon an ubay yitahoo ma fanaanoo ko attibru baatum attibru xitaxu dahabin ay morsoy wurus la aw fiddatin wala xaalis aji su ñaareel ku ñu dàkkentale abu sirwaxata mbaa sarwaxata moo ko net lu jële ci yonante bi ne yonante bi dama jiite woon takkusaan foofee ci madina kii net li moo wax loolu naka musulmal daal di gaaw jóg lool jéggi baati nit ñi dugg ci benn néeg ci ay néegi soxnaam door ñëwaat nit ñi nag di yéem nii mu gaawee naka musalmal daal jóg rek fi saasay saasa lu ko waral daal ñoom jaaxal na leen naka mu xam ne ñoom itam lim def jaaxal na leen mu ne leen dama fàttaliku lu xeetoo wurus woo bàyyi woon ca kër ga te ma bañ mujj ma maanaam su ma ko téyee te joxewuma ko sama xel di ci nekk mbaa mu di ma gàllankoor ci genn wet moo tax ma ne woon naa daal di gaaw génne ko séddale ko am na benn nett li bu ne daa wax ne kay dama bàyyi woon ca néeba wurus woo xam ne daa bokk ci asaka te bëgguma ko woon a fanaanoo dama ko bëggoon a gaaw a séddale rek moo tax ma daal gaaw jóg bala ma koo fàttee loolu yëpp gaawante ci lu baax ak njëkkanteeg dund gi bala dara raw ci xeet loolu la bokk ak taalis ak ñetteel ji xan jaabirin radiallahu anhu qaala qaala waxoon na rajulun waay li nabi ñel bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawma ci bisu uhud ara ayta wax ma rek in qutiltu ndeem reyeef na ma fa ay na ana fu may nekk xaala ne ko fi jannati ci ajjana fa alqaa mu daldi di sànni tamaraatin ay tàndarma kunna yooyu nekkoon nañu fi yeddi yi ci loxoom tumma topp mu xeex xataa qutila ba reyeef ko muttafaqun alayhi hadiis ñetteel jaabir moo ko nettali mu ne yonent bi day ca bisu Uhud boobee benn waaye dana ko waaw fi mu toll nii buñ ma reyee ana fu may nekk fu ma yàlla yóbbu mu ne ko ca àjjana fekk waa joroon ay doomi tàndarma waaye dafa dal sànni doomi tàndarma yooyee dal songu xeex ba di xeex di xeex ba ñu rey ko tekkal ci ne saxaaba yi dañoo xebi moon lool ngërëmul yàlla ak àjjana doon géejoo am darajay shahaada maanaam joxe seen bakkan ci yoonu yàlla arraabi aji ñeenteel ja xan abi hurayrata radiallahu anhu qaala jaa dikkoon na rajulun waay ila nabi jëm ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi fa qaala mu ne ko yaa rasulallahi ayu sadaqati ana ban saraxe a'zamu moo gën a màgg ci ab yool xaala ne ko anta saddaqa moo di nga saraxe wa anta te saxiixun aji wér saxiixun aji nay nga ci sa alal aji xir ci sa tax shaa da nga ragal alfaqara ñàkk wata mulu te nga yaakaar alxinaa am koom wala tumhil te bul dëggandiku buñ ko jasamee wala wala tuum si la te doo nekkandiku xata isa balaxat ba nga xamee ne jot na moom ruuga alxul xooma buli ga xolta ngay wax naa li fulaanin ñel na na diw kaza nangam waxad kaana ak nangam nekkoon na li fulaanin di ñel diw addis boobu muttafaqun alayhi la abu hurayra moo nekk li addis boobu ne daa am waaj ñëwoon ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa rasulallah xeetu saraxe yi xeeti saraxe yi bu ci ëpp tuyaaba mu ne ko xanaa sarax boo xam ne ba ko koy joxe mu ngi ci wér di séentu dund jëm ca kanam nga xam ne bu dutoon xir ci lu baax dana wara a bëgg a téye alal joojee ndax yaakaar na ne ak dundam des na ca kanam mi ngi ànd nga wér jàmm te dana ko aajowoo te lu ko yokk ci la xelam waroon nekk waaye wartoon nekk ci saraxe ko ku toll foofu nag nee na bu dee joxe alalam alal joojee mu joxe du rëy lool fa yàlla mu fay ko ca tuyaaba ju rëy rëy mu ne nag bul neggandiku ba àgg ci mu wóor la ne moom da ngay génn àdduna rek sab ab soreetut nga noor di wax naa diw dañ ma ko joxal nangam diw dañ ma ko joxal nangam mbaa diw ameloon naa ko nangam loolu day baax na waaye la ko gën daal mooy ba nga tolloo ci sa diggu dund di yaakaar dund ba ca kanam te teewul nag ngay def sa alal ci yoonu yàlla loolu daal moo gën a rëy lool bàyyi ba naagu ci sëg dund door di waxa def lu baax ci sa alal alxulqoomu jee ñëw ci addis ba majran nafasi mooy dawukaayu nooga wal mariu majrat taxaami mooy dawukaayu ñam wa wa ak naan nga alxulqoom la ne ko waxee mooy fi noog yi aw bu koo ko deen nooy al mariu nag mooy fa ñam waag naan nga di jaar bu dee lekk mbaa muy naan alxaamisu an anasin radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yowma uhudin ci bisub uhud fa qaala mu ne man yaqudu ana koy jàpp min ci man haza jële jeesi fa basatoo ñu tàllal aydiyahum seeni loxo kullu insaanin képp nit minhum ci ñoom yaqulu ma ngay wax ana man ana man xaala mu ne leen fa man yaxuzuhu ana ku koy jàpp bi xaq yi ak àqam ak gëddaam fa axjama te deltu gannaaw alxawmu nit ña fa xaala te wax abu dujaana te abu dujaana radiallahu anhu ana man axuduhu maa koy jàpp bi xaq yi ak àqam min gëddaam fa axadahu te mu jël ko fa falaqa te mu xare bi ci moom xaamal mushrikiina gaa ngi boppi yéefar ya rawaahu muslim ismu abi dujaanata turu abi dujaana simaakub nu xarshata xawluhu waxam ji ahjama deltu na gannaaw alxawmu mooy ay tawaqafu wa taxaw nañu wa falaxa xare na bii ci moom mooy ay shaqa xare na ca moom xaamal mushrikiina ay ru'oo sahum seeni bopp addis boobu anas moo ko nettali na yonent bi day ca xare Uhud bi yëkkati woon ne kuy jële ci man jësi ji xeex ci ci yoonu yàlla ñu bare bari tàllal seeni loxo kenn ku ne ne man man man mu dellu ne kuy jële ci man joosi ji te def ci la ca wara kon waxin yu na bu njëkk bu dana woon rek ana kuy jël ci man joosi ji xeex bi nag mu ne ana kuy jël joosi ji te def ca la ca war ñu bare ba daal deltu gannaaw ndax ragal jël jeesi ji te duñ ca def la ca war ku ñu wax abo dujaana abo dujaana mooy dàkkantel wa simaakub nu xarchata mooy tur wa moo ne ko man may jël jeesu ji te def ci lañ ci war a def nee nañu bu mu jëlee jees jëre yi def na ci jalwara ju rëy rëy xar na ca ay boppi yéefar yu bare bare assaadisu xani zubayr ibni hadiyin qaala atay naa dikkaloon nanu anas malikin radiallahu anhu fa chekkoo nu jàmbat ileex jëm ci moom maa nga xamee ne nal xaadanu taseeg moom nal xaadanu taseeg moom minal xajjaaji ci xajjaaj fa xaala mu ne isibro muñ leen fa innahoo naka lay mbir moo di laa yatii dikk zamaanun jamono illaa illaa jamono ja nga xam ne bax daxoo nekk na ci gannaawam charun mooy yées min ci moom xataa talxaw ba ngeen taseeg rabbakum seen boroom te sami atuhoo déggoon naa ko min nabiyikum ci seen yonante ba sallallahu alayhi wa alihi buxaari yu hadis boobu dane ku ñu wax Zubayr ibnu Hadiyun moo ne danoo mës a ñëw ci Anas ibnu Malik di ko jàmbat li nu xajjaaj di def xajjaaj nag ku doy la woon koo xam ne yàlla xam rek li mu tuur ci ay deret ak lu mu tooñ ci ay doomi aadama ne bi mu jàmbatee anas li nu xajjaaj def mu ne nu say boo ngeen muñ bu baax a baax ndax dégg naa yonante bi mu ne jamono joo toll di jàmbatit ja ci topp moo koy yées mu ne yonante bi nee na woon ba àdduna tukki jamono bu mujj rek yées ña ko jiitu woon mooy loo toll ci jamono rek saye boo sant te xam ne mooy tane lay ñëw ca kanam assaabiu an abi hurayrata radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala baadiru na ngeen jëkkante bil amali ak jëf yu ya sabaxan juróom ñaar hal tantadiruuna ndax da ngeen faqran bari ak ñàkk mun siyen kuy aji fàtteloo aw rinan wala am koom moturiyan muy aji beewloo aw maradan wala tawat mufsidan su di aji yàq aw haraman wala ak màggat mufnidan muy aji naagloo aw mawtan wala ak faatu mujj xisan muy aji jekkalee awi dajjaala wala almasiixu dajjaal fa charu gaibin moo yées ci aji fàddu yoon tawaru def na ko séentu awi saaxata wala bis penc fa saaxatu bis penc ak gën a jombale wa am marru te moo gën a weex rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiisun xasan abu xurayra moo li addis bii ne yonent bi woon lu waaye man ci lu baax day war na caa taxaw temm gaaw ndax kenn juróom-ñaar yi lu ci ñëw rek gàllankoor ko maanaam ak ñàkk gu méttee métti dal ko sagoom ba mën a def lu baax ba te yàlla mën na koo nag koom mu bari moo xam ne mbewte ba tey yàlla mën na koo nattoo